aousubillahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum mbokki murid yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare tey jiite suñu yoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ñaanal ko saa borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xamante ni naal na ko yéen a koo liggéeyal maam ju tedd Sëñ Bamba saa borom dooleel ko kattan ak man-man dooleel ko defal ko tawfeex ba nu mu ko bëggee mu defe ko ni ñu koy ñaanal itam sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Menda di ko ñaanal saa borom mu yàggal ko fi loolu te wér ko ba mboolem digal yu jógee ko sëñ Bamba yëpp mën koo jëfe ni mu ko bëggee di ñu ko digal ñu koy jëfe ni mu ko bëggee waaye di ko ñaanal mboolem murid yi mboolem jullit yi ak ku leen yéen jàmm mbokk yi ngi fii nga xamante ni mooy njaareem ci guddi ajuma yi ndax ndog yi ku ko wax sa mooy njaareem day mbir moo xamante ni Serigne Touba moo ko digaloon muy digal loo xam Serigne Touba moo ko joxoon Cheikh Ibrahima Fall waaye ndogu ajuma yi tamit kii nga xamante ni mooy Serigne Fallou doonoon fi Serigne Touba moo ko digaloon ki nga xamante ni mooy Serif Assane Fall en 1954 mu nekk si moom Serif di togg ay ndogu ajuma bu jot di ko yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou noonu la ko doon wéyalee ba 1974 moom Serif mu multiplier bool yi par deux muy 24 bool ñaar fukk ak ñeent di ko yóbbul ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou ba 75 nag mu ñëw doon Cheikh Ibra Fall bi mu ñëwee doon Cheikh Ibra Fall diggante boobu muy 75 ba 80 Serif weeru koor bu jot bis bu jot. da daan togg ay ndogu si ñaar fukk bool ak ñeent di ko yóbbul ki nga xam mooy Serigne Touba waaye gannaaw sërif nag bi mu ñibbee aljana sëñ Abdou Sakkoor Fall ñëw sëriñ Abdoul Ahad daal di digal ki nga xamante ni nii mooy xalifaam bi yàlla fi yàgg loo tëgër muy Serigne Amdi Khadi digal ko nag na ko seyal si biir sa liggéey seyal ko si biir liggéey ki nga xamante ni mooy sëñ Abdou Sakkoor loolu nag si la wëy ba at yi fi sëñ Abdou Sakkoor nekk toggul ndogu moom ki nga xamante ni wala ndogu aju may kat da koo tegoon si suuf waaye gannaaw gi nag si la sëñ Abdou Lahad at ko gannaaw suñu Abdou Sakkoor digal ko nag na ko wéyalaatal liggéey boobu nga xamante ni sa baay bu baax ba Sëriñ Asan tàmbali woon na ko muy ndogu ajuma yi muy dox na tey di dox tey di dox tey ba tey kenn mënta wax ndogu yi te sa sa xel demul ci njaaram kenn mënta wax ndogu yi sa xel demul ci kawsara waa goreenu war li nga xamante ni mooy ajuma Baye Cheikh lay la. ndeysaan jërëjëf sëñ Baye macha allah ñu ngi leen nuyu baax a baax di ziare sëñ Mun jaay Fay eh, mi ñu làngool mel ne wax nga ko tey kon ñu fii tey eh, ci ci Jurbel eh, di njaar yéemu xam ngeen ne nag dëkk bu tedd la ndax Sëñ Tuubaa mi ngi fi ñëw 1912 su ma jumul waaye comme euh, Sëñ Mbay ni nga ko waxee rek mbokk yi nga xam ne tey ñu ngi ñuy topp kon tey tey ci guddi gi àjjuma gi ñu war a ñëw taataan mbooleem euh, liggéey bi nga xam ne mi ngi bàyyiwoo ci kër gi seen sëriñam di di ko taxaw taxawaay bu am solo waaye nag euh, Sëñ Mbay dañuy dellu tuuti rek am lu ñu leeral ngir mën a tënk kàddu yi ndax mu mel ni lii ndigal la dañuy wax ne nag ndigal moo ëpp doole lu ndax keroog bi nga xamee ne Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall mi ngi Cees ca toogam ya Daaru Bayre la ko Touba wóon nee ndaw ne wooy leen ma Ibra Fall waxañ ne karoog bi nga xamee ne Cheikh Ibra Fall teggee na foofa dafa wut si njaarim gi dëkk na fi ab diir mag ñi nag am na ñu ne 1906 am ñu ne 15 waaye lu mu ci mën di am daal benn date ci la waxañ ne si Sëriñ Tuubaa woolu ko lii si am di mii di taxaw nag moom laay leeral ngir ñu xam ne lii ndigal la moom it nag mu ci koo xam ne waxtu woo ko tudde xel yëpp seen xel dem ci moom waxtu woo weeru koor tegoo rek ajjuma ji ñëpp danañ ko xalaat ku ku gis mbooloo mi xam ne gars yi Dakar lañ jóge ñii jóge Touba ngir xeeb même liggéey si am di bi wax na keroog bi nga xamee ne maam Cheikh ñëw na dëkk fi Cheikh Sëñ Tuubaa woolu ko mu ànd ak Sëñ Mudloo Sëñ Yaaram Mbay euh, Baay Masamba Njaay wàqi nee na keroog wax ne keroog bi mu jàkkaarloog Sëñ Tuubaa maam Cheikh Sëñ Tuubaa ne ko damay ane ami gan suba bëgg nga bernde leen waxañ na keroog bi Sëñ Tuubaa demee maam seex dafa jug dox ba yàgg mu ne ah doom Masamba Njaay mu ne ko faal mu ne doom lu Sëñ Bamba wax nee na mu ne ko laajal yaaram mu ne ah bon yaaram lu sëñ Bamba wax mu ne ko day ami gan suba bëgg nga bernde leen nee na karoog maam Cheikh dana dënn ba yàgg mu ne ah doom yaaram mbay mu ne ko faal mu ne ko doom bindal ma tànk nee na mu bind taa taa tombe bind keef maam Cheikh ne a ah doom keefee taa tombe gi ñaata la ñu ne ko ñeenti téeméer keef gi ñaata la ñu ne ko ñaar fukk mu ne ah doom muy ñaata si yaaram mbay ne kon muy ñeenti téeméer ak ñaar fukk maam Cheikh daañu ne ah doom ëpp na doom effacel te bindaatal ma tànk te nga jiital taati daro nee na mu def taati daro def keef mu ne ko doom taati daro gi ñaat la mu ne ko juróom-ñeent keef gi ñaata la mu ne ko ñaar ñaar fukk mu ne ko muy ñaata mu ne ko muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent maam Cheikh daañu daa doom kon suba la weeru koor di feeñ gis nga rek seeb laa daan wax naan weer wuy feeñ bu yow day tàggu sëriñ bi yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxib bila adadi Cheikh it noonu la ko weer daan tàggoo moo tax mu ne doom suba kon weeru koor day feeñ sëñ Bamba ay ndogu la may toggaloo kon léegi nag tey moo tax tey ñu déplacé wu ñëw tey fii ci kër gi di jàmbaar yi Sërif Assane Fall naaru kaw sala kenn la koo xamante ku ko tudd sa xel dem ci Cheikh Ibra may wax ne sëñ bi mii dafa yokk liggéeyu maamam bi dafa ñëw yeggale ko fa wax nga ko sànq loo xam ne ci ñaar fukki bool ak nangam tàmbalee tey kenn mun naa wax tey lim bi kenn xamu ko kon lii ñu xam ne kon la muy wax naan ku yokkul yaa wàññi feeñ na ci jëmmam ji dañuy wax na nag mën a waare baax na siñ bay waaye fexe ba ku la gis waaru moo ko gën kii nag def na li tax jëmmam ku ko xool waaru de découragé wu nag ak dëddu àdduna bokkut seen di mii moom moo dëddu àdduna ndax ay milliards lay jël di ko def ci lii te su ma juumul ndogu yi maanaam mën nañ ne juróomi ajjuma dala ko war a doon lépp nag nii la koy defee te waxtu wu ñëwee day gën a yokku kon nag lam ne woon ko yokkul yaa wàññi moom mi nga yokk liggéey bi sëñ Bay jërëjëf Laylane Modou Ndiaye Faye c'est si que Serigne Touba avait donné le ndigal à Cheikh Ibrahima Fall de préparer les ndogu waaw euh, alhamdulilah jërëjëf Serigne Bay euh, comme il l'a dit tout à l'heure Noëlan c'est entre les années cent 1916 aujourd'hui nous sommes en 2023 plus de 100 ans que les ndogu Euh, sont préparés ici à Kershech, Ndiarem. Et n'oublions pas que Mam Fall vivait juste à côté, à Makaloyloy. Mais depuis qu'il avait reçu le ndigel de chez Ahmed Bamba Hadim Rasoul de célébrer son hôte, à savoir le mois béni de Ramadan, Mam Fall n'a jamais quitté ce ndigel. Et aujourd'hui, puisqu'en 1923, nous devant le domicile de Serigne euh, euh, Amdi Khadi Fall, Ibn Cheikh Sirif Hassan Fall, en même temps son calife, mm-hmm. ça veut dire que l'action a été pérennisée. Mm-hmm. La pérennisation de l'activité est devenue effective. Mm-hmm. Et aujourd'hui, la foule qui est derrière et l'engouement qu'il y a à à suffisance que Serigne Amdi Khadi a suivi les pas de son illustre grand-père, Mam Cheikh Ibrahim Fall. Et Serigne Baye, ce qui est encore plus particulier dans cet événement, c'est que quand on regarde à l'intérieur, il y a différentes couleurs. les couleurs sont les euh, euh permettent de représenter de, de définir mhm. ou de mieux représenter les différentes maisons de Mam Cheikh Ibrahim Fall ainsi que ses cheikhs. Donc en regardant la maison, toutes les couleurs sont présentes. Mhm. Et l'autre jour, je disais que le Baïf, la voie Baïfal excelle dans ce qu'on appelle euh, la gestion de, de la diversité. Mhm. Aujourd'hui, toutes les organisations qui savent gérer au mieux les, la diversité sont les organisations les plus abouties, les, les plus en réussite. Mmh. Et aujourd'hui, Serigne Amdi Fall, Serigne Amdi Khadi, mmh. euh, euh dans sa maison toutes les couleurs. Mmh. Cela signifie tout simplement que euh, son action a un impact considérable. Mhm. Parce que Serigne Baye, n'oublions pas aussi que toutes ces personnes qui sont dans cette maison, y compris moi, mhm. on n'a jamais vu Serigne Amdi Khadifal. Nous ne l'avons jamais vu. On a entendu parler de lui, on a vu ses photos. Mais de par ses actions, on a aimé ce qu'il fait. On est envoûté, on a été vraiment, on est amoureux des actions que mène, que pose Serigne Amdi Khadifal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui toute la communauté Baïfal euh, vient répondre à chaque vendredi pour l'accompagner dans ses préparations des ndogu, ndigal de Serigne Touba aujourd'hui ndigal si Cheikh Ahmadou Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla dolli dëgëral te yàggal ko te wéral ko Serigne Mbaye. jërëjëf Modou Ndiaye Faye ci kàddu yi am solo yooyu ni nga mujjee Serigne Amdy Khady ñëpp ko bëgg ñu ko déggi sax bëgg nañ ko. ndax fii liñ leen fi wan mooy li ngeen xamante ni moom ngeen di xemmem ndax moo fi am kon nañ àndandoo ñu daal di tàbbi si biir wan leen li nga xamante ni moo fi xew dégg ngeen si kar si daaj nañ ko dañ leen wan li nga xamante ni mooy gàtt yi li nga xamante ni mooy ganaar yi ndugg mi matt mi lépp loo xamante ni aju na ci waajal ay ñam dañ leen ko wan waaye incha allah rabbi ni lañ ko fas yéene ànd ak yéen tey si guddi jàpp suba incha allah lépp lu fi xew dañ ko xam ba keroog ñuy jëbbal ndogo yi ki nga xamante ni mooy Serigne Touba kon bismillah

la ilaha ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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 La ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah Fa la la waaw kay mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd gi nga xamante ne ànd ngeen kook ñun démb ba léegi nag tey xëy teel si nañoo xëy si fii nga xamante ni mooy ci biir kër Serigne Amdy Khady Fall fas yéene leen wéyal li nga xamante ni tàmbali woon nañ ko génn muy wan leen li nga xamante ne moo xew fii ci ndogu njaaree mi niñ ko defee démb rek gis ngeen gàtt yeeg yooyu yëpp ak li nga xam moo aju ci wàccaay yi noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen nag ànd ak sunu caméraman mu daal di tàbbi si biir wan leen li nga xamante ni mooy waañ bi liggéey beeg yooyu yëpp waaye jox ki nga xamante ni mooy Baye Cheikh Laylan mii mu daal di xool ki nga xamante ni moo yor kàddu kër gi waxtaan ak moom ci lu bëree bari ah Baye Cheikh. macha allah jërëjëf suñu bay comme ni nga ko waxee rek xëy si nañ tey war a ñëw taataan kàddu yi nga xam ne ku ne xam na Baye Moustapha Seck ci biir kër Serif Assane Fall nga xam ne waxtu wi ñu fi ñëwee moom la ñu sëriñ bi di booleel muy koo xam ne borom xam-xam la tey ñu bëgg a ànd ak moom laaj ko melokaanu kër gi waaye nan la taalibe yi di doxee ci biir kër gi suñu bay jaajëf nañu àndandoo daal di daal di doxal loolu. waaw kay mbokk yi comme ni ñu ko waxee woon rek ñu ngi toog ak Baye Moustapha Seck Baye Fall ku ne xam na ko ci kër Serif Assane Fall naaru Kawsara tey ñu fekk ko fii tey ci kër gi ngir bëgg a waxtaan ak moom rek waaye waxtaan wu tënku Euh, ci euh, maanaam organisation bi nga xam ne moo am ci kër gi mu mel ni bii jàll Baye Moussa ñëwal nañu ci taarixu ndogo yi waxtu wu nekk da ciy leeral lu am solo te murid yëpp di ko di ko bàyyi xel kon Baye Moussa euh, tey gis nañ ne organisation bi nga xam ne waa kër Serigne Amdy Khady Fall ñu ngi koy kii organiser li nga xam ne tey mooy ndogoy Sam Ibrahima Fall yi Baye Moussa lan nga no ma a indil ci nekkinu kër gi ak gis nañ biig ba léegi mbooleem taalibe yi waaye mbooleem kilifa yi ñi ngi ànd ak nit ñi ci liggéey bi soit loo ñu mën a indil ci organisation waaw organisation bi de moom daanaka soriwul la li ngeen ma laajoon ci cosaanu ndogu yi organisation bi ci cosaan yi la bokk damay wax saa sama xarit ba di sama wëllëre sëñ Omar Kan Balla Aysa day wax ni loo bëgg xam te laajuloo cosaanam boo sàgganee ñu won ab sofaanam cosaanul organisation bi nag mooy ni ko maam Cheikh Fall doon organiser rek loola nag day mel ni boo ñëwee Kawsara loola nga fiy fekk boo demee kër xalifa généralu Baye Fall ci sëñ Amdi Fall mbenn Mbenda mu Cheikh Modou mbenn Mbenda loolu nga fay fekk soo demee Mbawar ga loolu nga fay fekk soo demee Kër Sëñ Mor Talla Fall loolu nga fay fekk soo demee Kër Sëñ Ibou Sakkoor loolu nga fay fekk soo demee Kër Sëñ Mbacke Fall loolu nga fay fekk soo Sëñ Saliou Fall Sëñ Cheikh Ngunda loolu nga fay fekk ba mu daj Kër Sëñ Bajir Fall Cheikh Fall fa ne boo demee Kër Sëñ Ablaye Fall Ndar looloo fa ne ana loolu nag mooy lan benn organisation la. ndax dañu ko tër ci yar ak teggin te ñaar yooyu bu ñu àndee moo tudd ak taalibe te kër maam Cheikh Fall lépp ak taalibe rek la kon bu ma Kawsara nag ci laay waxe waaye ñëpp laa waxaale niñ ko tëre mooy leen lu ci ne daa am ku ñu ko jox ngir bañ sor sorko ak bañ mu sooxe fi ne nii bassin baa ngee citerne bi bu 15 tonnes wàcc na fi léegi lu man ñetti yoon waaye benn siwoom ndox soo ko ci bëggën te ki ñu jox citerne bi jaaroo ci moom mën nga faa bañ a kaas ku bëgg ci moom ngay jaar mu joxe ndox ni ko bi diglee ndox mi du yàquti li nga bëgg di ko am boo demee fee ca matt ma wenn xur ñetti matt soo ko te di moo ca ku ko bi jox boo sàggantul doo taal waaye nag ku fa dem yóbbaale ndigal saam ya ak ne ak war a toggal deñ na ko jox ba sa togg ñor te doo ca sonn waaye nag ci ndigal kàddu gii ma yor tam noonu la deme ndax sëriñ bi dafa wax ni li ñu li ñu war a xam te mu man a feeñ feeñal leen ko lu ñu war a suturaal suturaal leen ko li ñu war a suturaal nag mooy dem ci cin nit cin la filmer ko te moom dina ko bañ ndab lu ñu defar ba noppee itam te itam yëggagul ca fa ñu koy jébbalee looloot ayu nit tiim ko sëñ bi dina ko bañ defee su ko nag la la des nag mooy bu ñu muuree ndab yi mbaa ñu dajale ndab yi benn barab wane gi ak yëgle rek la yëgle gi ngir ñi ci bokk te war a liggéey bi war cee dox ñu xam nañ ciy doxe waaye nag loolu deeñ ko maye waaye li ñuy wax euh, micro trottoir fii ci kaw sare di suñ bi da fii bañ dañ ne ni ku fi ñëw waxal ak man lu ma la wax na ko doyloo te yóbbu loola la organisation bi cin yi ku ñu rappel jox sa cin nga di ko togg wut nañu ab commission boo xamante ni ni ñu bëggee togg gi demee ni wax nañu leen ko ba ñu xam ko ñuy wër ci ca soxna yi ñoomit it boobe boobee jëwriñ ju nga ca jëwriñ jigéen nga ca ku ñu ñëw ni la da defee ko nii ñoom it dañ ko defee noonee ba bokkul sëñ bi seddu guy soxna yaa ngi nii nga xam te ne dara ñorul leen nag lu dul seen liggéeyu yar bi ak teggi niir boo ñëwee li nga fiy dégg mooy nuyoo nga fiy dégg ak sikurulaayi ak salaatu ala nabi ak xalaat seen rek moom la ñu gungee liggéey bii kon bu bu sungo suñu sungoon jotee takkusaan sëriñ bi ci boppam dañu daal di organiser ginaar yi jóge Dakar ñu indi ko ci conteneur yi ñu tàmbali tàmbali ko def ci ay bool ngir fot ko yéene defar nag yee tam ñu génne leen indi leen tër leen lewetal leen toppatoo leen ba mu sell def ko ci bool ngir ngir waajalal ko ñu ko war a togg loolu moom ci guddi ko lañu koy def guddi alxames liggéey itam la ñuy ay booru une heure deux ni balaa cinq heures du matin di nga jot si cin li nga war a togg tàmbalee raxas ak dafa sedd bi ba nga te ni daanaka togg yëpp day yéwén te dina ñor te kooka du ca te dara du ci géttan loolu loolu nag soxna yii am nañu ab yar am nañu ay teggin ñoom tam amul leen lu leen ñor lu dul siin digalul maam lii ni ñu ko bëggee ñu ngi ko nii defe góor ñi ci loolu nekk kon daal ah, ndoguy sëñ bi mu am nag laneen loo xam te ni moom na ko ci ñépp xam ndax sëriñ bi bu ñu defaree ndawal gi ba noppi sëriñ Assane Fall it nii may wax noonu la ko daan defee sëriñ Assane Fall daawu toggaale ak mbaq daawu toggaale ak butit daawu toggaale xëtër ndax yooyu dañoo tooy te mën a faraxal ndawal sëñ am ni xëdi nag dina ber mbàq yi ak butit yi ak xëtër yi fee ni ko baayam daan defe sëñ nag bu ñu ko musaa ber ba noppi ñi daan yoren pièce ma ak ñi ko yittewoo la ko daan jox ñu yóbbu ko kër sëñ am di nag ba ma ca ba ma yokk mooy su ko beree da dañu jox macaroni bu doy jox lu diw ak mboolem lu koy togg ñu togg ko nga xam tey jii boo ko xoolan mat na juróom benn fukki mbana yoo xam te ni macaroni ak ak ak ak yëfi biir yi nag wi ñu togganu ko ay añ nu añ ci ba rekk boo balaa balaa loolu am itam bëgg xelum tenn bañ dem ci li ñuy liggéey sëriñ bi takkusaanu alxemes dina rey lu man ñett ba yent nag ñu togg ko ay tufe ñiy defar nag yi ak ñi ñi ñi war a taal reer ci ba waaye nag li muy defal Sëñ Tuubaa nag moom bëggul kenn tepp ci baaraam mus ndax booy defal si kilifa boo ko jëkkee ñam la ca des lu mu lu mu mën a toll aw des la te sëñ bi loolu te loolu nag la cosaanoo ci Seera Faal ba léegi waaye reer yi sunu reer bopp yi mu nuy toggal ndawal la dégg nga dina taalit ci soom bi lu mat nangami cin yu bari yoo xamante ni déenu ko xëy ndékkee bu bëccëgee itam ñami biir yooyu muy butit yi ak bàq yi te sëñ Assane daaw ko toggaale moom it du ko toggaale waaye nag da ci boole ni ma wax nii macaroni ak diw ak lu ci war a ànd toggal ko nu añee ko kon nag loolu sang boo xamante ni indi nañ la ndab sa kër na ca sam xel dal te xam ne nun kat doonul loo xam koy tiim sunum xel di ca ne te du te itam amuñu benn soxla ndax sëñ bi bernde nanu ba daanaka day mel ni nun ñii ko tiim di ko togg koo ci joxan ndawal ni la sax moom moom doyal na kon sëñ bi daa bëgg mu sel daa bëgg mu ñoŋ te bëgg na xelum ñi fi nekk ñi koy jëfandikoo dal service d'hygiène yi ñu ngi fi dégg nga euh, docteur yi ñu ngi fi borom man intellectuel yi ñu ngi fi te kër gi da ko bari le bari nañ fii ne ñoo xamante ni ci wàllu togg képp seen xam-xam ca jëm te ñu ngi ko ciy def dégg nga euh, Croix-Rouge mi ngi fi matuwaay yëpp ñu ngi fi ci wàllu yoon itam jëlale na taalibe yi waaye ñi sant faal juddoo ci kër gi maîtriser ci droit ñu ngi fi nga xamante ni ñëpp déggoo nañu jubboo nañu waaye teg nañu nit ñi ci yoon condition yoo xamante ni suñ ci jaaree duñ joteeg buur duñ joteeg doola te li bi bëgg ñu ko def ci sell loolu loolu daal loolu mooy kawsara mën naa la ni matière yëpp nag mi ngi fi su loolu jàllee nag itam la sëñ am di waxam sëñ mu tàkkaa nonga ci barki démb bi mu jébbale ay addiyam ak mbayam da koo wax ni ko liggéey bii nga ma jox ci université ba muy kënsul kitaab di kërug alxuraan dama bëgg liggéey bay dox ndogo yu dox nonga ca nag ba ca ngoon lanu fa wàcce dimbali alxames noonu la ci ndogo yi ak tey incha allah di bu dimanche noonu waa Touba sëriñ bi nee koy ndaw te mën a yenu wala nga man a pik wala nga am kattan soxla nañ la ci université ba ndax ñu nga ca samp deeya ak payaas ya su ko defee ko mën a gas gas ñi mën a toll suuf yóbbu toll suuf yóbbu dimanche soxla nañ ko ñëpp sëñ bi daal nee na daa bëgg lépp di dox na ndogo yiy dox. na liggéey bi dox ndax sëriñ Assane Fall noonu daan liggéeyee te sëriñ Assane sëriñ Amdi Xadi lu fi sëriñ Assane defal yokk na ko kon nag ndigal laa ngoog njariñ laa ngoog kër gi daal li ngeen ci laaj mooy loolu sel ak sellal ak ab yar ak teggin ni borom yoon wi rëdda yoon wi ni sàmmay tuhoo tarbiyatan wa tarxiya li kulli man taalaxu bi tasfiya yoon wi mooy yoonu yar ak teggin ci képp ko aju ci moom moom borom Tuubaa tey sellal maam ci Ibrahima Fall lii la woote wan doomam yëpp ca la ñu awoon sëtam yëpp it fi ca la aw noonu waa Koosaraat ca la ñu ànd ñoom aw waaw kon sëñ baa ngi nuyu tey tey tey siyaara tey ñaanal kilifaam yi ci kanamam Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalifa généralu murit ak sëñ Amdi Fall monsieur Modou Fall Mbenda xalifa général Baye Fall ak mboolem ko mu bokkal sëriñ bi borom Touba Xaadimu Rasuul ak mboolem ko mu bokkal maam si Ibrahima Fall tey jokk nag kóllëre ci mboolem ñi nga xamante ni maamam ju baax ji di maam si Ibrahima Fall daa ànd nag ñoom di liggéeyal borom Touba Xaadimu Rasuul sëñ Amdi Xadi Fall ne ne mi ngi jokk kóllëre ga Seera Fall siq nag mag ña mu ko jokk ci ñëpp te tàllal ñëpp loxo tey ñaanal ñëpp jàmm yenn na boole jàmm kenn ku nekk nag ci njobootu maam si Ibrahima Fall ak kenn ku nekk ci njobootu ña nga xamante ni seen maam dañoo àndan ak borom Touba di liggéey di sakku ngërëm ngërëm lu fi sa maam bàyyi woon yal na yokk ca ña ko ña ko dese te di ko saytu te nu te nu am ci tawfeex gisee mun tax Mbàkke di ñaan kon riddan wa rahmatan minallaahi ba di xayri mina dunya ma fi ajma'iin fa la ilaha illallah Serigne Khady Fall jaarale nuyoo bi nag ci Serigne Cheikh Khady Fall mu jaarale ko Serigne Sidi Fall Serigne Sidi wax na ni mi ngi nuyu sunu sëriñ si fi ne. mi ngi nuyu sunu sëriñ si fi ne. sant Mbàkke. ñi sant Mbàkke. tàmbalee ko ci maam Lamp Mbàkke. tàmbalee ko ci maam Lamp Mbàkke. moom sëriñ Moustapha Bassirou. moom sëriñ Moustapha Bassirou. ak ñi mu àndal ñëpp. ak ñi mu àndal ñëpp. di ay bokk. da ay bokkam fekk leen fi. te mu fekk leen fi. mbaa ñu fekk ko fi. mbaa fekk ko fi. sëriñ baa ngi leen nuyu bu baax. ngi leen nuyu bu baax. di leen siyaara. di leen siyaara. booy liggéey ab liggéey. ndax booy liggéey ab liggéey. ba ña koy liggéey seet si la. ña ngi koy liggéey seet si la. sam xel war naa dal. sam xel war naa dal. sa xol it war sedd. sa xol it war naa sedd. kon mi ngi ngi leen di siyaar bu baax. di sàkk ci ñoom ñaan. tey sàkk ci ñoom ñaan. lii muy liggéeyal sëriñ bi. lii muy liggéey sëriñ yal na ko saa yeggale. na ko saa borom amin. gannaaw loolu. gannaaw loolu. sëriñ Sidi wax na ni. sëriñ wax na ni. sëriñ baa ngi nuyu ñëpp. sëriñ baa ngi nuyu ñëpp. tey sant ñëpp. tey sant ñëpp. tey ñaanal ñëpp. tey ñaanal ñëpp. fu fi waay jóge woon daal. jóge woon daal. bis bii. ñëw ci bis bi ngir woote bi ngir woote bi ci liggéey bi ci liggéey bi gis na la. sëriñ bi gis na la. yëg na la. yëg na kon nag. kon nag. na sam xel dal. na sam xel dal. ak cantam. ak cant. akuk ñaan. akuk ñaan. fekk na ko fa nga ne. fekk na nga yóbbaale ko. nga yóbbaale ko nag. wax nañu nag. wax nañu nag. ginnaaw liggéey liggéey bii ñu nekkan. démb ak tey. démb ak tey. toll na fii. toll na fii. kon li fi des. kon li fi des. santante. santante. ñaanalante. ñaanalante. soññewaat nag. soññewaat nag. ci àjjuma ji nu dëgmal. ndax àjjuma ji. sëriñ bi day wax ni. bi day wax ni. daa bëgg ju ci ne. bu ñëwee. ñun ñëpp. ñun ñëpp. nu maase. waajal ko. waajal ko. ànd ak moom. ànd ak moom. ba mu yegg. ba mu yegg. nu waajal ja nu waajal mel na ni ji nag. fii la toll. gis nañ ko ñun ñëpp. gis nañ ko ñun ñëpp. kon sëriñ bi xolam sedd na. kon sëriñ bi xolam sedd na. am xelam dal na. am xelamit dal na. yaakaaramit dolli ko na ci nun kon nag kon nag. ñu fabuwaat rek. nan fabuwaat. waajaat waajaat. jëm ji ñuy dëgmal. daal di jëm ci ji ñuy dëgmal. ba buñ ca yeggee. ba buñ ca yeggee. ji faw ko ko. mu faw ko ji rek. kon nag wax na ni. nee kon wax na ni. la mu doon fàttali démb. la mu doon fàttali démb. ak bëkk démb. ak bëkk démb. moom lay fàttaliwaat tey. moom lay fàttaliwaat tey. loola mooy. loola mooy. bu toll nii liggéey bu toll nii daal ku ko liggéey ko liggéey ba mu yegg si fii ba mu yegg si fii nga moom liggéey ba nga moom liggéey ba liggéey ko liggéey ko ba mu yegg lépp loo xam ni lépp loo xam ni day rax liggéey ba day rax liggéey mu ngi la koy dawloo mu ngi la koy dawloo ginnaaw bi ñu ko dawee ba noppi kon wax na ni kon wax na ni nanu demee woon keroog nanu demee woon keroog noonu day noonu day seddoon na xolam lool sedd na xolam lool. ñun nag ñooy xool. ñun nag ñooy xool. lu ca nekkoon. lu ca nekkoon. te waru caa nekk. te waru caa nekk. seppi ko tey. lu seppi ko tey. ba mu bañ caa nekk ba mu bañ caa nekk. dafa bëgg. dafa bëgg. suñu jógee fii. suñu jógee fii. nañu ànde woon ak yar. nañu ànde woon ak yar. ñu yokk ko. nañu ko yokk. nañu ànde woon ak teggin. nañu ànde woon ak teggin. ñu yokk ko. ñu yokk ko. yëngu bi. yëngu bi. ñu wàññi ko. nañu ko wàññi. oto yeet. oto yeet. dublente bi. dublente bi. ak rawante bi. ak rawante bi. bàyyi ko nañu ko bàyyi. kenn ku ne ci ñun. kenn ku ne ci nun xam nga ka war a jiitu xam nga ki war a ak ka war a topp kon sëriñ bi dafa bëgg nii ñu tàmbalee liggéey bi digaluñu ko noonu mu digaleen ko noonu yegg nii mu yegg nii nan ko yeggale ca borom ni mu ko bëggee ndax wax na ni ndax ko bëggee ni jariñ moo moom nag ni mu ko bëggee dafa bëgg mu dal dafa ak yar yar ak i teggin benn yëngu bañ am benn yëngu bañ am àgg ca àgg ca borom. loolu mi ñu koy dénk loolu mi ñu koy waxtu wuñ fi fi jógee. nañ ko bàyyi xel. wax na ni saa suñu jógee jógee fii. nu nu fi jógee rek. noonu la ñuy àgg foofa bu ñu yënguwul bu seeti. dina gàttandu dina du yëngu. waaye bu ñu yëngu fii waaye àgg moom foofa àgg dañuy yëngu ni nun kon nag wax na ni lim bëgg daal te bëggal ñu ko. mooy lim ñuy digal lim ñuy tere nag moom la ñuy tere. te ku ko defit te ku ko defit la la cay lor ci yow lay jógee waaye nag waaye nag bu delloo ci yow waaye bu delloo ci yow yéene wula ko yéene ko kon dafa bëgg kon dafa bëgg kenn ku ci ne kenn ku ci ne la muy digle nga tënku ca nga tënku ca loolu loolu mooy li ko gënal sëñ si di wax nañ nag mi ngi nekk Touba. mi ngi nekk Touba. ñun ñi nekk Touba ñun ñii nekk Touba. liggéey bee ñu nekk liggéey bee ñu nekk. ca université ba ca université ba. dañoo toll. dañoo toll. ci soxla mbooloo ci soxla mbooloo. bëgg dimanche ak jàmm ñu bëgg bu dimanche ak jàmm. ku nekk Touba ku nekk Touba. ngay mag ngay mag. ngay ndaw ngay ndaw. ngay jigéen ngay jigéen. ngay góor gu am kattan ngay góor gu am kattan. soxla nañ la fa soxla nañu la fa. ca gas gas. ak yenn suuf ak yenn suuf sa. génne ko génne ko. ñu bëgg dimanche ak jàmm ñu bëgg dimanche ak jàmm. bu ñu ca yeggee lépp daje fa ndax liggéey ba foofu foofa la toll. baa ngi sant ñëpp sëñ baa ngi sant ñëpp. di ñaanal ñëpp tey gërëm ñëpp. ñu àgg ci jàmm fekk fa jàmm fekk fi jàmm ñëwaat fi ci jàmm nag. فلا إله إلا الله la la la la la إله la la la waaw koy mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal boobaak léegi yéen a ngi ànd ak ñun démb ba tey fii nga xamante ni mooy njaareem ci ndog yi nga xamante ni sëriñ am Khady Fall mi ngi koy waajal di ko jébbal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha jëlal nañ leen la nga xamante ni moo fa xew biig si guddi nañ doon wàccaaye li nga xam mooy ndog yi waaye bi ñu xëyee tamit tey jii ni nga xamante ni taxawee nañ ko waaye waxtaan ak kilifa gi ki nga xamante ni mooy Baye Moustapha Seck mi yor kàddu si eh, kër gi ñu waxtaan ak moom seq waxtaan tey si yar geeg teggin geeg ak melow yi nga xamante ni sëriñ bi sàkk na ko si murid yi ñu mel noonu ci li nga xamante ni mooy ndog yi waaye ànd nañu ak yéen bawoo foofu nga xamante ni mooy njaareem convoi bi ba nii ñu accès fi nga xamante ni mooy Touba Baye yoonu maam ji yor ñor na ko lool. macha allah jërëjëf sëñ mbay jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp dem ba léegi comme ni nga ko waxee rek ji euh, liggéey bi ni nga xam ne noonu lañ ko taxawoo ba yegg si fii waaye nag ku ne it xam na na euh, depuis bañ jugee njaarim ba léegi gis nga yoon wi waa kër Cheikh Ibra yi euh, waa kër suñ Modou Ablaye waa Ndar Fall waa ñaari Baye Fall euh, fépp foo jaar da nga gis mbooloo mi génn waaye nag di wane seenu mbégte ak seenu fierté waaye it sëñ sëñ Mbaye jàngat nañ ba ci liggéey bi da gis mbooleem bundu kër Cheikh Ibra yi sax ndakate am na ñoo xam ne dañuy déplacé wu kay di ñëw di ànd ak euh, sëriñam di xati liggéeyam bi nga xam ne liggéey bi da koo yaatal kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne jëlal nañ leen ko waxtu ci mbooleem ndogu yi yi nga xamante ni si yem di xat yi ngi koy amal waaye nag euh, Sëñ Bay dangay ngay gis maanaam sell gi nga xam ne it si yem di euh, waa këram yi euh, ñu ngi koy doxale ci biir liggéeyam bi mooy cell gi waaye tamit tey yar gi ndax gis nga bañ départ njaareem bañ ñeeg si fii déggoo benn bir wi ñëpp tegu ci yoon waaye tegu ci yar kilifa yi tamit jiitu ànd ak taalibe yi ñu ànd ak dal ak teggin ba ni ñuy ñëwee di ko jébbal si sëriñ bi waaye tamit sëñ bay da ngay gis keroog ba nga xamee ne teg nañ ko démb euh, muy tey jii rek biñ tegee bool yi da ngay gis sëriñ bi kaddu yi nga xam dina ko te muy kaddu yoo xam ne euh, kaddu yi am njariñ la yu valeur mooy yoo xam ne képp koo xamante ne da nga am weneen melokaan sax nee na bu bul jege bool ngir ngir sellal li nga xam ne tey moo war a ñëw ci kër Sëriñ Tuubaa ndax kat ni nga koy waxee Sëriñ Mbay képp kuy defal ki gën li gën nga koy jox kon mbokk yi lii mooy li nga xam ne kon jëloon nañ leen ko di ko ànd yéen ñi nag waxtu wu nekk ñu koy feggoo ko euh, Sëriñ Mbay loo Baay euh, ci njàmbaar geeg gis nga dem ba léegi njàmbaar gi nga xam ne wane nañ ko te ñaan borom nangul ñu Sëriñ Mbay jërëjëf jërëjëf euh, mbokk yi nga xamante ni boobaak léegi yéen a ngi ànd ak ñun kon ni leen liñ leen digoon ba koor gi di tàmbali ne fépp foo xamante ni njabootu Cheikh Ibra Fall gi ña nga fa ne di toggi ndogu dañ dem wane leen li nga xamante ni moo fa xew noonu lañ ko fas yéene ànd ak ba koor gi jeex ñu ngi leen jox di daje ba suba ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu